waaye sama yaram dafa daw. ko ko sa may pex dafa dafa wax di box yaa ngi ñëw ci yëpp dafa élargi. waaye ko sa pex gars yi jóg nañu. première course réservée au PDA plus de 3 ans distance 1650 mètres. gars yi dawalandoo nañu ñoom ñëpp a dawalandoo nañu maa ngi seen ki nga xam ne moo di yëgul buur maa ngi seen ki nga xam ne moo di waa Maman Soda Diaw mu ngi noonu moo génn en première position. deuxième position maa ngi seen ki nga xam ne moo di Kazaaku Bleu Blanc la écrit réewit. 3 ans yi jóg nañu damel daw Zena Dawel yëgul buur ñëw na dawal nañu yëgul buur mu ñëw nga gis noonu nga xamante ni ndeysaan noonu la trois ans yi dawee fii ci Badro village Diop kon Diop borom gañaay borom gañaay noonu la yëgul buur dawee jërëjëf Koso Peex Mama Soda jaw moo génn mi noon noonu ci 200 mètres bi di ñëw bu ñëwee ñu dellu maa ngi seen doomu guyaar maa ngi seen la numéro 11 di kaaxaan moo di yëgul buur. Damel Daawur Demba. Damel Daawur Demba dawal nañ ko xel yu bëri mu jege. dawal nañ ko xel yu bëri mu jege si. dawal nañu doomu Kiyaar. dawal kaaxaan ne moo di yëgul buur. dawal nañu yëgul buur waaye attention attention li nga li eh, dawal Demba. Damel Demba daw jege si na en deuxième position jege kaaxaan ne moo di waa Sora Diaw waaye dawal nañ doomu Kiyaar mu ñëw en troisième position gaa yaa ngi noonu ci liggéey tàllal. attention yow Damel Daawur Demba. dawal dawal nañu yëgul buur. yëgul buur génn nag léegi. oh yëgul buur génn na yëgul buur génn na. deuxième position Damel Daoud Demba troisième position nekk doomu Guyaar. quatrième position nekk ki nga xamante ne si moo di Mampenda waaye finalement ki nga xam ne moo génn moo di yëgul buur. waaye gis naa en troisième position doomu ko yar yëgul buur na yëgul buur a noonu wax na yëgul buur façon collecteur la Papa soo ko booti teg day daw soo ko booti tegul day daw yëgul buur a ngi noonu di ñëw Papa Sall. yëgul buur na distance bi sax man doyatuma day tegg si waaye koso gis nga noonu stade bi jóg nañu mais lii attention yëgul buur attention yëgul waaye itam mel daawar dem ba ngi daw xel yu bëri di ñëw mi ngi daw xel yu met di ñëw première yëgul buur première yëgul buur deuxième Mampenda troisième Dame Daaw Demba waaye ki nga xam ne moom moo moo jël première di yëgul buur mi ngi nii taxaw ndeysaan kaa moo ko waroon di kaa xam ne moo di Modou moo ko war di rakk ci Momar Dieye Momar Dieye mi ko daan mooy war Medina nekk foofu ci écrit jàngal ka Momar Dieye ngi noonu ndeysaan mag jaa ngi lii rafet waay lii rafet na lii c'est le maire lii la lii lii lii gis nga gis nga Momar Dieye wàcc na fas jox ko rakkam tey rakkam ñëw raw ci mu ñëw akulaat rakkam foon rakkam sama yaram waa ngi daw Babacar ma lépp lu bëgg a dee sa émission jaabal lu bëgg gis sa émission jaabal Kansa tout ça émission jaabal émission jaabal mooy leeral émission jaabal mooy wane émission jaabal mooy génn ku bëgg a seetaan mbaa nga bëgg gis course mbaa nga bëgg a gis leer da ngay dem ci jaabal ar borom yëgul bi ngi ni góor a caam sama yaram dafa daw nag ci fas wi ndax góor a caam dégg na lu ne ci fas wi daj na lu ne ci fas wi ànd ak fas wi ba gaay yëpp ni ko bàyyil na fas wi bàyyi daw bàyyil fas wi mu gumba taxlu indi ko deux ans fas yu am benn première mu yóbbuwaat ko ci préparé ko tey muy miir trois ans Gora Thiam nuyu naa waaw sant yàlla euh, euh, maa lay nuyu di la ziar wax dëgg yow moom sama waay nga parce que mën naa ni sa première émission mën nga ko defal ci course ko sa peex waaye nag li nga yor soo ko yorul rek da ngay parce que Olof Ndiaye nee na doo mbër jàngul euh, jàngil bëre waaw sant fas yu moom dafa juddoo fi mu war a juddoo yaa ngi dégg def li mu war a def yëpp Modou maa ngi ñëw def li mu war a def yëpp yaa ngi dégg tolof tolof yi bëri woon na si moom année deux mais ñun xam nañu fasu mën a daw la ñor parce que papa fas yi papa ji groupe 1 la di félicité bu baax chaque jour li ma wax rek Arama mi nga xam te moom moo juddul fas wi Lamine Diop ak Sidi Ndaw ba Ndaw bi ma ko joxee fas yi bu ko neexoon mu jël fas bi changé tur bi mais wax fa dëgg yàlla yàqu si dara chaque jour mi fas yi sama tur te sama objectif instant bi nii barki alxuraan karim nekkatul ans yi surtout trois ans mais gis nañ ne jockey bi dañ koo aj tey Momar ànd ak rakkam ñëw indi fas bi ñu doon coow nag ci groupe yi di wax naan jok ban jok lañ koy a tey ngeen indi. dañ ñu woon tey test la. parce que Momar jàmbaar la. di féliciter El Hadj Ndiaye. Père Demba Momar Dieye ak euh, Mor Mafou ah di féliciter set euh, staff yëpp. Euh, koso fas kenn du koy yanu di da wax moom fas day mën a daw rek daw. man xam naa ne fas bu baaxee dëgg dëgg dëgg bu ñuy ñëw si tur bi loo gis muy lunju moom lay doon tur bi daa xool yëgur buur la tudd waxuma la ak baadoola ba du du turu baadoola man de sam fas yi bàyyi naa ko xel ci grand prix chef de ah mais yàlla baax na yàlla baax na ñu si ñu mën nañ ko xaar ci ëpp ah waaw lool lu ñu waxtaane lay doon rek eh. waaw canta ci bi nga sari ma tor tor ñaala tanki piim ambu ndey wen njaay mi du gantu du tiim du saaga bari ne nguraan peey sa kër maam yaa defaral jumaa ya yaa jëkkal xabru ya wak ya, ya. ndey maxtaar mi parlu paral nguraan wuuf na njaboot gi jàmbaar joni ñaani jàmbaar saa yu xarat mette eh, sama sama xel day daal ah gaa yi jug nu gaa yi jug nañu Cheikh Wade gaa yi jug nañu jërëjëf ko samay peex gaa yi jug nañu ñoom ñëpp jogandoo nañu mu nekk plus de ans ñu war a si distance su 1200 mètres maa ngi seen ki nga xamante ne si mooy le numéro 15 di Misaan yi dawal ko xel yu bëri waaye maa ngi seen ki nga xam ne mooy le numéro 3 di Balaz mu ne en deuxième position gaa yaa ngi noonu si tournal professeur Sakhir Thiam am nañu ki nga am nañ li nga xamante ne moo di 200 mètres jëm ci 1000 mètres bi Kosa Mbaye Peex ki nga moo génn moo di Misaan deuxième position nekk nga moo di Balaas Kosa Misaan moo génn en deuxième position Balaas waaye Balaas génn na ànd na Misaan tukki Balaas ngi noonu ci kanam mi ngi noonu gis naa neex a neex a waaye Balaas a ngi noonu ci kanam Balaas Balaas PSNSA en troisième position waaye Misaan bañ na ba léegi Misaan bañ na Misaan Misaan dal na si kaw balaa nee ko loo wax ma suul ko ndeysaan waaye ki nga moo génn ba léegi gaa yaa ngi noonu doon benn fas ndeysaan diggante Misaan ak ki nga xamante ne moo di Babacar toogatul taxawatul bëri ndeysaan waaye deuxième position nekk nga xamante ne si moo di moo di balaa troisième position nekk nga xamante ne si moo di Misaan ñu ngi noonu di tourné tournant 200 mètres bu ñëwee dañuy téye ndeysaan waaye ki nga xamante ni moo génn moo di ki nga xam moo di moo di Xalima ex Balago attention Balaas attention Balaas Xalima attention les juges waaye xale ma jaar ci aras bi balaas balaas a ngi noonu balaas ak misaan balaas a ngi noonu jëw balaas balaas balaas raw na première balaas deuxième xale ma troisième dimanche bii génn gis nañ misaan ni mu daawee ànd ak deux yi ñëw ci daanandoo ak ñoom execo ci box ci ci ci arrivé bi tey mu ñëwaat am troisième Babacar tey lan nga ma mën a wax ci lool waaw bon course moom xam nga rek course ak ay réalité euh, xam nga gëj a daw si aussi parce que course yi booy xool day daaw di taxaw donc daaw di taxaw bi am na fas xam ne arrangé na leen am na ñu mu arrangé am na ñoo xam ne mën nañ ci noppalu am na ñoo xam ne duñ ci noppalu donc euh, misaan tey daw na am na troisième mais booy xool problème bi ba ci biir booy bi dafa xaw a xëccoo donc bi mu génnee dafa war a toog te ay bureau toog xaar xaw a jaabal tuuti bay fas mu nooyi mais boo xoolee mayul fas mu nooyi benn yoon looloo tax bi ñu toogee taalal mi dafa xaw a fatt léegi donc du coup amul amul lu mu arrivé amul finish loolu mooy indi tey mu am troisième